reddition de comptes di jeex dañ la war a utal sa générique bopp xam nga ku ñu woo mm. waaye te maa koy wax hmm? Hmm? Eh. xam nga ku ñu woo xam xam nga ku woo xam nga ku kan woo non man dama dem ah ki ñu woo kan nañ ko moom kañ na bind ci Facebook ne woo nañ ma wala moo xam ko rek eh. ah kon mais am na ku ñu woo daal <laughs> am na ñu ñu woo ñu ñu hmm. waaw waay aw ma ci woon lu officiel damay déggoon naa amoo ci woon eh? lu officiel yaa ngi doon déglu émission bi ngay ñëw <laughs> couleur nabu bi. waaw moom couleur boobu la yor sax doon déglu kay. yi fi ah, jaar yëpp ci ay cas yaa doon déglu ngóone moom tey kaay. couleur bii nii su ma bëggee nii ci moom gëj naa bëggee. te da ngay ma jox kaas ba mu fees couleur bii duru na ma maam booy de. maam booy man. maam booy. ah non damay laajte ci ñu ñu woo. Ah. waaw wooguñ ko. ngóone yëgu ko de bàyyi leen ah. kon ngóone ñu bàyyi la ko jóg maa ngi nuyu sénégalais yi tamit <laughs> fépp fu jubanti nekk ci réew bi ak ci bitim réew ba fi ngeen nekkoon baax na de. waaw ñëwal ci Lat Diop ñëwal ci loolu. ñu ngi woon Lat Diop reddition des comptes. perquisition wu këru Farba euh, euh, ah, euh, bu OQSF c'est ça moom c'est ça convocation moom dañ ko jàpp sax dañ ko teg loxo mais mais moom ma nettali moom bu baax dafa xaw am nee na ay trouble psychologique comme moment des faits hmm. daxa waaw daxa jàll daxa jàll mu ne la am trouble psychologique comme moment des waaw moom ma nekkoon nii moo doon wax nii. sans protection. qui sans expérience sans expérience. qui gagne victime. jàmbaar parce que moo ko moo dugal vidéo bi. non taxaa amul problème bopp rek. Ah, moom la dama leen ko doon kii rek. musul am problème bu bopp. Hmm? taxaa kii bon. Euh, ayca commencé la neex je fu la neex. blanchiment la ak. Euh, détournement. waaw justement dañuy public blanchiment ak blanchiment parce que tamit euh, xam nga. Euh, nabu kii la reddition des bu ñu nekkoon ci dëkk bu normal rek ça ne devrait pas même pas poser débat parce que lu normal la loolu moom mooy normalité en matière de gestion géré nga 12 ans yow même bu ñu la newul woon sax kaay yow yaa waroon a def sa état des lieux teg balaa ñuy nekk fii di bind ay livre bilan ak livre blanc. ñoom ñoo waroon defar seen bopp. état des lieux. voilà euh, mais malheureusement Sénégal mosu fa am 1960 ba léegi euh, maanaam gars yi bu ñuy tàmbali sax mel ni ñuy saytu Abdou Diouf lan la waxoon avec la CREI que je ne vais pas scier la branche euh, sur laquelle je suis c'est, c'est catastrophique c'est-à-dire pour des considérations politiques mu bàyyi teg euh, Ablaye Wade il n'y a pas eu de reddition des comptes avec euh, les vingt ans de les quarante ans socialistes parce que Sénégal ak ni mu bindoo da ngay kii parfois nag politique bu ñëwee rek dina yëkkati benn dossier xaw a tiital Tanor Dieng affaire yooyu après dugalaat ci poosam Macky Sall kasaalika ba mu ñëwee euh, ñëpp dañ ne woon reddition des comptes dafa war a am c'était une demande sociale. avec l'arrestation et l'emprisonnement de Karim wadd la demande sociale et devenue un dégoût social. pourquoi parce que. alalu askan wi yaxanal ko taxu ko woon jóg da doon politique alors euh, li nga xam ne Sénégal dëkk bu jafe la. Mm-hmm. ci wàll boobu noonu parce que euh, pression bi day bari euh, voilà classe maraboutique euh, de kii Sénégal benn bopp la kenn mënu ko maanaam négocier quoi négocier intervention et cetera tax yu bari kii mais fii nii actuellement nii nii nii ce régime là tey jii nii après deux mille vingt neuf suñ fi defoon ay réalisations yu extraordinaire sans reddition des comptes ils ont échoué waaye bu mbir mi yemoon kese ci reddition des comptes delloo alalu askan bi ils ont réussi parce que en fait dafa am loo xamante ne foog ñu instaurer ko ci Sénégal c'est-à-dire transparence respecter alalu askan wi mm-hmm. respecter li nga bokk loolu foog ñu imposer ko Mm-hmm. imposer ko ci anam boo xamante ne de manière définitive képp ku yorati alalu askan di nga xam li nga yor nii lan la parce que am na ñu convoqué dañu feebar. waaw ma yow yow ba maanaam ba ngay jël la nga jël am na ñoo xamante ni ci Sénégal bu ñu feebaree amuñ fu ñu fajoon ndax jël googu nga jël. Mm-hmm. na ñoo xamante ne jàkk nañ seen bakkan ndax amul service minimum de base ndax jël boobu nga jël. alors donc yow sa feebar ak sa faju ji à l'extérieur ci alalu contribuable bi moom jar na après ñu bàyyi la ko non yooyu bu mu daw suñ yaram mënul nekk. parce que en fait y des sénégalais yoo xamante ne ndox bu ñu naan problème la ci seen gox. wallaay dëgg la wallaay war a génn ci émotion bi. wallaay dëgg totalement. Mhm. ak lu mu mën a jar quel que soit le prix. loolu loolu régime bii nii daf ñu ko. Euh, ah. il il nous impérativement. Mhm. parce que euh, l'argent du contribuable gis nga euh, marathon bay ñëw yëpp. par force di nga ci dégg détournement de deniers publics quel que soit niveau de responsabilité nit ki parce que danoo foowee alalu askan wi léegi nag tey jii nii euh, je pense euh, euh, Ousmane Sonko mu ngi ko doon wax di joxe exemple ci pays scandinave mais c'est-à-dire da ngay gis ku gérer ba pare des années ñu wàcce la suba nga jël bus dem liggéey. dëgg dëgg. waaw yow la dara c'est-à-dire foog ñu am cette culture même. Euh, de toucher alalu askan ak une main tremblante xam ne lii. waroo ko dugal fu mu war a tudd. c'est la phrase war waroo ko def noo ko warut a def parce que il en va de la survie de beaucoup de sénégalais. Mm. tey jii nii situation yi prison yu metti na bu ñu amoon euh, lu lu ñu war a réfectionné mën na jóge foofu euh, ngay dem ñoo xamante ne poste de santé am na benn ñu ñu ma maanaam pour ñoom ñu dem poste de santé c'est à cinq cinquante kilomètres de. poste waxuma la hôpital poste de santé c'est mu ngi nekk à cinquante kilomètres foofu urgence bu fa amee nit ñi nu ñuy def am ay nit yu war a mën a taxaw dóor autant de milliards ba pare bëgg bëgg bëgg bëgg a jaay teg xel ci kaw nit ñi quoi loolu ce n'est pas possible xam nga léegi nag am na ci yenn yoo xamante ne surtout sur des infractions économiques mais loolu day day day nasaxal économie bu réew blanchiment par exemple maanaam da ngay jël xaalis bu jógee ci crime wala déli dugal ko ci circuit légalu économie ci immeuble loolu dafa bëri tellement cest am na am na yoo xamante ne peut-être au fil euh, des procédures que ni dañuy xam l'étendue du préjudice bi nga xamante ne ñu ngi ñuy kii mais li ma ci gën a neex mooy il y a il y aura euh, procédure judiciaire mais aussi en même temps euh, s'occuper de problèmes de Sénégalais. Euh, Macky Sall à un certain moment bi mu lancé procédure yi traque des biens mal acquis pratiquement loolu rek lañ doon wax ñoom. fàtte woon nañ li leen fi tax a jóg ñoom en tant que exécutif mhm. alors donc le régime dénk euh, jox justice mu liggéey ak indépendance bi war mais ñoom it ñu dox ci yittee askan wi ëllëg maanaam reddition des comptes ñoo parce que euh, en 2029 ça aura lieu aussi ñoom ci seen bopp dinañ rendre compte donc mu war a doon une normalité loo xamante ne sénégalais yi en fait duñ woo dañ kenn rek way mu commencé di andi ay politique la et cetera foog ñu intégré ko suñu quotidien de tele sorte que. ça devient loolu la wax. loolu rek la ñuy wax bëgg xañ parce que xam ngeen dooleem ca géejawaay moo tax ñu bëgg ko néewal doole. mais de local deux mille vingt deux ñu gagné la ci géejawaay législative deux mille vingt deux ñu gagné la ci géejawaay présidentielle deux mille vingt quatre ñu gagné la ci géejawaay loolu lay tiital sincèrement quoi. lan lan lan moo la tiital lan lan lan lan la la en euh, quoi la Diop peut faire euh, euh, lu bon ba war ko non mais quand même qu'on soit sérieux affaire yi ku génn dina ne politique la nag mais sori na loolu politique ça n'a rien à voir. ba tey ci avocat maître El Hadj Diouf nee na lépp lu ñu ko laaj teggi na ko ba ci tuuma yi. teggi na ko malgré tout téye nañ ko. waaw waaw. non te euh, il est en garde à vue. waaw moom laa waaw ah waaw oui euh, pas encore condamné. Euh, lañ lay laaj mm. ñoom ñoo koy teggi li leen laaj ñoom ñëpp kuñ ci laaj mu teggi ko te boo génnee ci biti it ne politique la change ñaari chanson yooyu moom euh, di nga ko miin ces ces ces jours à venir ku génn dina ne politique la mais xanaa gisoo gars yi tëb fenêtre di génn APR di créer ji seen yëf yi bopp waaw. waaw parce que après dañuy dem euh, créer seen liste nekk tête de bu la jàppee rek nga ne li li ma nekk tête de moo tax. ah ah oui bien sûr ils essaient de créer benn une humidité politique genre euh, je suis candidat moo tax ñu bëgg maa kii loolu yëpp dara dara ah, parce que bon euh, xëy na am na loo xamante ne. créé euh, parti xam nañ leen ne beesut de. Hmm? yàggul de. waaw yàggul yàggul mais ci lañ bokk. Ah. di nga gis ñoo xamante ne dañoo nekk tête parce que bon peut-être bu ñu desee après duñu nekk tête de liste or ils ont besoin d'être tête de liste après tête de liste li ma nekk tête de moom moo tax damay gagné bërëb sàngam damay gagné bërëb sàngam moo tax ñu may ñu may kii loolu loolu yooyu yooyu yu fi nar a bëri la mais en tout état de cause lu mu mënti doon euh, moom lat ak ñeneen ña ñu woo ñëpp ils sont encore présumés innocents li ñuy teg sa kaw ndodd andil la preuve que ni euh, tu es innocent de ça avec la preuve. dañ lay nga ñibbi. mu des njiit li bi mu wootee dafa ne lay indemnité am depuis bi mu nekkee ancien chef d'État ba léegi jotu ci. mu mel ni kon. Euh, cest à nga kooku. la ñu bëri doon wax ni président Diomaye